hello good morning good morning uh, Best TV nuyu naa leen nuyu um, am na leen lu ma fi gis léegi nii ci YouTube bi ñuy laajte si benn télé bi ñoo waa BP ñuy laajte ci yëfi série yi quoi ñoo yi ñoo teg senegal ñun de nekkuñ biir Sénégal de waaye série yi ñu ngi ci ñu ngi ciy njariñoo bu baax a baax a si série yu bari ñoo teg senegal nii ñu ngi siy njariñoo gisuñ ci série lu ci bon tamit te nit ñi ñi ngi wax ne série yi dañ ci war a arrêté am na yoo xam ne dañ ko war a stop bañ ko play te dégg la yi moom gisuñ lu ci lu ci ñaaw anyway xam nga dina am ñu ci gis lu ñaaw tamit ñëpp mënuñoo bugg a you know lu ñoo seetaan waaye ñun de théâtre yi boo dem théâtre boo xam ne daal ñu lu ñoo lu ñoo play Sénégal daal Gambie daal ñu ñëpp koy seetaan te ñëpp a si rafetlu ñëpp bëgg nañ théâtre yi so su gars yi ne dañ ko dañoo arrêté théâtre di si you know like di wax ne ne dañ ko dañ ko stop because théâtre yi nekkuñ di yee xale yi mu ngi yàq xale yi loolu ñun mënuñoo gëm loolu waa ah, especially man mi sam bopp parce que théâtre yi bari laay seetaan ci tele Sénégal léegoo léegi mu raw ma ma seetaan ko YouTube théâtre daanaka théâtre yu bari yu ñoo wone daal dama koy seetaan te théâtre gisuma ci benn yàqu-yàqu bu ci ne nit daal boo ci bugg boo boo ci bugg a bon daal da bon ñun yàgg nañoo seetaan film tubaab yi yoo xam ne dañ koy jëlee Norway ay ñiy jóge Mexico yenen dëkk Brazil waa di fóonante xale di ko gis loolu mooy lu yàq waaye ay maasi marijo pot wiiri wiiri no ñoom idole ay ay théâtre yu bëri bëri bëri bëri yu may seetaan daal gisuma dara lu ci bon ci man waaye bu ma sañoon daal buñ ko buñ ko arrêté because suñ ne dañ ko stop ah, ñun fii dëgg dëgg nag théâtre yi moom car macha allah you know bugga nañ di ko seetaan trop te xam nga mu ngi jàngale si beneen boor tamit waaye bu ñëw ne day day yàq nde gisuma fu moo yàq ci man so te am na ñoo xam ne excuse me am na ñoo xam ne daal ñëpp ñu know lu nit ñi di def lépp mënul leen a neex quoi dina am ñum si naqari dina am ñum si neex so loolu la rek fu yonante bi di am noon daal xam nga foog nga am foog am lu ci am noonu rek fo am lu ci rax ñu boole ci yeneen di ci jéem a wax loolu rek la waaye théâtre yi daal gisuñ dara lu ci bon especially man gisuma dara lu ci bon ci théâtre yi parce que théâtre yi daanaka yu bari ma seetaan yëpp ci YouTube laa ko dee seetaane su ma munta seetaan Ah, directly dama dee ñëw after den ma seetaanaat waat ko yeah di leen di leen referlu dinaan jërë ngeen jëf quoi jërë ngeen jëf